damay enregistré sama album bi Sidi Diop moom moo ñëw dama ci aw suuf di ci way. di la aw ci suuf. pas boole beeg affaire yëpp moo ci way. te booba kenn xamu ko. kenn xamu ko événement yëpp moo ci way kooku maanaam album man ngi ko doon enregistré fin 2015. di parewoon na bu yàgg ñoo ko dencoon rek. Mhm. ah bien mu doon sama rek doon koo xam moom daanal la mën a way. waaw nekk xale ba pare nag am avenir. Mhm. waaw li ma koy digal daal mooy. Mhm. na dal rek liggéey liggéeyam bañ a indil benn kalti kalti ak ñalti ñalti mhm. liggéey pare am ak ñëpp jàmm mhm. loolu moom bu ko defee mën na sori ci musique ndax xale la ay ci kon ñoo ko déggandoo kon euh, muy euh, kàddu yi nga xamante ni moom la euh, Dame Sène yëkkati jëmee ko ci rakkam jooju ñu gën koo xam ci Sidy Diop Dame kon ñu dem ci album bu bees bi album bi mi ngi toj tukkil jamono fi mu nekk nii nu mu demee noonu. non pourtant lii tukkal nii du album de. mais c'est single la album bi pare na ma nga ne à côté dama ko jël ni ko nii. kon kon single bi mooy. mais chien daal. ndekete chien chien ba ma bàyyi Thiès ma ngi mbaw ñi ñii daw muy matt ñii fu ne la ñuy matt nag. donc est-ce doo ko est-ce que doo ko wutal chien. bi moo ko wutalee chien après sàcc mën nañu tëb ci kër fekk ma tàkkuñ sàcc samay bagages <laughs> te da xool mais chien dafa mën a ëmb mooy. Mhm. le chien. la du chien. chien sa le bu ko mécanicien. courant électrique? bu sété koy électricien. man musicien. très bien Leg. Bon le C'est le Amérique. américain bu C'est suñu bouquin. le C'est mais inspiration bi tamit yalla <laughs> ay ci kon naka nonu mbokk yi le album bu bees bi euh, kañ lay génn. ci kattanu yàlla

kon coppe xam nga moom sama doom day waaw boo ne day defe moom moo naan ko coppe te moom xam naa ni album bi ci am morceau moom ah, moom Pape Coppe naa lool de loolu dina garaaw de tam seen Pape Coppe ah, ñu diyoo ci kàttanu yàlla hmm. ragal naa loolu de mën naa nekk de nañ ñëpp ñaanal rek yàlla baax na loolu xam nga boobu diyoo dina doy waar <laughs> Pape wax jox ma rek ma jolli mbeer sànniwaat ko ay wax wi cax lay doon de ay ci kon mbokk yi fii lay xewee fii ci wasaare musique fii lay xewee fii ci euh, chaîne bu bees bi nga xamante ni nag moom moo euh, nar a toj jamono moo nar a tukkil jamono chaîne la boo xamante ni euh, bu ngeen ko toppee faalaw ko daal di bës cloche bi lépp loo xamante ni lu jëm ci wàllu musique la di ngeen ko fi mën a amee waaye tamit lépp loo xamante ni lu jëm si wàllum lamb lu mu mën a doon lu jëm ci li nga xamante ni moom la télévision yi di teg mom dañ koy am ci biir chaîne bi information bu leen ko raté na raté surtout pas fii lay xewee euh, duñu def lu dul daal di koy bàyyi moom dam Sène mi nga xamante ni nag moom la ñu invité tey su suñu si suñu kaw chaîne mu daal di tàggatoog askan bi euh, tàggatoog ñi nga xamante ni euh, ñoom ñoo koy seetaan di téléspectateurs yi. man kay yéeg sur seen fàtte sama chaîne bi kay ma jaaxal rek. mais chaîne bi ba léegi feeñul dam tamit. mais garaaw léegi daal li may def mooy. Hmm. maa ngi lay sant. ndeysaan sant sa caméraman yi. Mm-hmm. di sant euh, képp ki nga xam ni ñu liggéey ak yow. di sant waa Amérique gépp nag. Mm-hmm. Amérique gépp nag laa maa ngi sant ñëpp ku lim cuum. mais fii ma nekk di fi nekk émission bi. nekk fekk sama sœur mu yër ma ñu koy wax yumpaañ. yumpaañ ndeysaan ak jëkkëram ju baax jiir di Ousmane. Ousmane. ñoo ma yaatal ba lii mën a am. dëgg la ndax lii bu leen du amee fii. Mm-hmm. may sant tamit sama dëkkandoo yi nga xam ni maanaam damaa ñëw moom mu jël ma sédd ma ñoonu. ndeysaan ma ci yumpaan nii. ndeysaan muy ku mel ni Ali Mbengue. Mm-hmm. ak su baax seen ñuy seen caat mais di ndey bint seen moom dama ko simbi sàpp mooy meen ngoone sama nit doon sama yaay doon sama xarit xam ni da boo ñu fekk ñu waxtaan da ngay def ne mm-hmm. ndax man sama yaay mi Sénégal mais maanaam namm ma yaay ndax moom dëgg la daf ma jàppee comme sama yaay ni ma jàppee. ma mm-hmm. koy xoolee it nag. dëgg la ku baax sama yaay nag kenn la ci man. Mm-hmm. waaye ni ma jàppee moo tax ma wax loolu. dëgg la ñu jàpp ma ma ñëw ñu jox ma néeg boo xam ni mat laa lal lal ak lépp nga ci biir. ndeysaan manqué wu ma dara maa ngi lekk maa ngi naan umpaañ mii lu ne la may jox. wax dëgg yàlla dàmbaa lekk nga. ngay ngoore sàmm it noonu. Mm-hmm. mbaa naan nga noonu lañ may def. ndeysaan su ma yëkkatee kudd pour raxas ko sax dañ ne ma tegal. Mm-hmm. man leen nag lii de man leen nag bàyyi leen ma liggéey tuuti nag yéen nag <laughs> waaw tu muy dégg léen nag boo ma bëggee lu ma yëkkati ngeen ma tegal man kañ laay liggéey mais daam dangaa ba pare nag di yëkkati seen su ma nee sax sama su sax ñu daw pharmacie ndeysaan naanal garab bi baax na ci man naan xoola man daal jooyu ma dara dara grand bi jëkkëru euh, yërma mi day ataaya di ma jox ndeysaan dem naa nga ataaya tey dem toog dem ca waañ ba attaay ñoo di may indil te mënoon na ko ci bañ a fekk moom moo waroon toog ma koy attaay. feeñ na fii tey parce que añ bi ñu jox añ bi neex na macha allah. teg ci jarum soow moo xamante ni. <laughs> Ah. di maa mara di taali bu la fi reer nga xam. baa li ngay expliqué. bu tax ma téye samay caméraman ñu toog fii xaar reer yow tamit. jar na ngeen fanaan. baal li jar ngeen ngeen fa añ bi. ah soo ko jaajëf boo nee ko umpaañ mun la lay lay la danga may nax danga ma koy defalee. Hmm. yooyu la des ma ne ko umpaañ nga ci wàññi rek mu daw ñëw. di sant tamit coxo. coxo ndeysaan di sant booy élage. sama xarit fii la ne. élage waaw élage ñoom Birigo. Hmm. sant ñoom euh, Alié Diagne. ñoom Mbaye Gueye Faye. Alié waaw ku baax ku baax ñi noonu. billaay Alié man ko xanaa Alié nga woon. ndeysaan sant Basi. Basi que sama xarit la. ñu ngi lay barke sëñ Bamba fii daal ku lim juum. ndeysaan. daal sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp fàttewuma kenn ah, si Abdou Khadre mi nga xam ne ñoo taxaloo kër mooy gaan din gisoon sànq taxaw na Abdou Khadre waaw nit ku baax vraiment man daal Amérique dama di sant ñoom kéwee mm-hmm. oh, ak ñan waay eh, bakka bakka bakka bakka ñang ñeme ma ko fàtte maam jaara yii maam jaara ku jaar ci moom xam moom ku takkal la moom tamit ak mën teraanga moo tax man ma simil ko sàpp dootuma fa demati da ngay dem moom mu lay force ay lekk ay naam moom ndox la. te te te ca waañ ma lay nekk di la ko chargé yow daal da lay chargé ba dootoo mën a déchargé. da lay jox fruit yëpp. Mhm. ba pare tegal la ci fruit bu bees bu xew. mooy ban kew. loolu garaaw na de fruit bu bees bu ñuy wax kew. kew kew moo xew. mais loolu ni ñuy def ba turbe ko. boo bëggee xew. Mhm. réer kew maa nga naan si xew. léegi nga xew. kon dem ku ku yebul daal di wuti kew ak sexaw de damay yëy kew bu baax léegi dinaa sexaw bu baax ndax ma xew waaye loo xoo fii lay xewee fii ci fii ci euh, wasaare wasaare musique ah waxoon naa ko tasaare waxoon naa naa ko tasaare ba na tey waa daam mhm. euh, gis naa ni gis nga fii ma génn tey yow kay fi mu ne nii man damaa jëm lii nii di di di bu baax a baax sama tailleur waaw ku la def nii sama tailleur bi nga xamante ni ñu ngi koy wax jii di création jiili moo def nii. moo ma def nii de. jiili. jiili création. ñaar nga waroon def de. moo def nii. créé woo dara nekkate. récréation rek nga génn. non mooy. xool li nga def kii ak ni ak ni ma def. baal liggéey baal liggéey xoolal fa ma fa ma may lu tamate. ay ay ay eh, eh, eh, la. waa ci jiili jooju lay génne. ci jiili lay génne loxo muy fàttoon nañu. billaay wallaay ku ndum ndum su ndum mi. création day génn fii. nee naa leen jantal animateur best of animateur in the world ci wasaare musique. xam nga nag jiili dina mel ne toq sa bënn sànni ba réer de lii jiili àcce leen rek. Hmm. xam nga jiili bës leen cloche rek. xam nga jiili day créer. waaw xam nga jiili lañu wax jiili bokkul ak ceeli. jiili bokk ak. te ji jiili moom moo tax élèves yi ñu génnee récréation. Hmm. ku ci nekk maanaam. mais avant avant avant jiili ji lii lu ñu koy defaree kii daal deru mbëtt la. mbëtt mel ni. mbëtt lañ fekk mu yëkk garab ñu ñor di tànkee. ah mu ne mbapp. ñu rend rek fees. tooñoo leen. fooree tam. yaa moom loolu. Mhm. rawatina nag waa Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar troisième gaar baa ngi nii ci sama dëkk ba Thiès maa ko nam Sénégal. Mhm. yéen lay safoo yéen laay ndamoo yéen laay tiitaroo yéen laay toog mu ko rawatina nag Thiès plus particulièrement sama koñ ba jaxaaw maa ngi nuyu sama famille. kii mhm. sama yaay kenn du moom du nuyu samay njaboot nag samay jabar samay doom waaye jiili création ngay doxantoo. sànq nii ngay doxantoo. sànq nii ngay doxantoo. sànq nii. ku suuf nii ngay doxantoo. eh commande nii ngay doxantoo. jigéen wér nii lay doxantoo. da ngay. ay waay xool la nii may doxantoo baax waa waa waa dàmp man de man de. yaakaaroon naa ne lu may yëngal du yomb waaye lu ndaw lii. yëngal na ma tey de. tamaa ngi nii. sa të të të ay ci kon mbokk yi naka noonu fii lay xewee fii nga xamante ni moom moo di euh, wasaare musique euh, gis ngeen tey lii lañu am indi leen Dame seen fii ci euh, New York du ñu def lu dul di leen jëfal di leen bëggee di leen jox dig daje ba beneen yoon. ci beneen artiste incha allah rabbi Aïcha de mi ngi noonu